AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy maanu alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana al-huda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan min hulum xad washalhu dakiran wa shakiran abada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 ñoo ngi àddu fii ci daaray Hikmatul Yawmi nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 33 951 49 44 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy andi ay ñaan yoo xam ne nii mm, wax baax na waxtu bu nekk waaye rawatina waxtu yi ñu toll muy. jamono ji nga xam ne nii actualité bi mooy tawat ji ñuy wax coronavirus te eh, suñu xikma yee ci gannaaw ma joxe woon fii benn ñaan goo xam ne ngi jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari dima ko laajaat xëy na niñ ko waxe woon ci xikma bi dafa xaw a gaaw waaye ñu andi ko tey andiwaat ñaan goo xam ne ni mi ngi jógee ci Cheikh al Xadim eh, sunu yaakaar ndax ñaan moom mooy ngànnaayul jullit te lii xew ku ne xam ne ni euh, nañ def sabab yi bu baax na baax na lool ndax sabab moom mooy euh, la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon arab yi ba nga xam ne ne dafa ñëwoon andi ak gëléemam ba jege yonent bi sallallahu alayhi wa daal di bàyyee gëléem gi jëm si ci yonent bi yonent bi ne ko yeewal sa gëléem gi mu ne ko dénk naa ko yàlla bi ne gi ba mu dëgër nga doog koo dénk yàlla daal ne ko nag التوكل حالي والاكتساب سنتي فمن ضعف عن حالي فلا يضعف عن سنتي نكو wakiil yàlla sama mbir wakiil yàlla lépp mooy sama mbir man yonent bi sallallahu alayhi li ci wax a tawakkul waaye nag fàggu maanaam sabab yi nag mooy sama sunna képp koo xam ne nii lot nga ci sama mbir bu la sama sunna raw kon sabab lu ama am solo la wa ala kulli haal li koo gis ni muy doxee da xam ne nii sun borom tabaaraka wa taala rek nag moo ci mën a musal ab jaam ndax buñ xoolee tubaab yi li leen yàlla may ci ay jumtuwaay te gis nga nama leen sonale nga xam ne nii lii mbirum sun borom tabaraka wa taala la waaye yàlla ñu ci wasal ñun ñëpp waaye ñaan yi tamit dafa am solo kon nañ ko fonk te ñu xam ne lor ak njariñ du jógee ci kurut sun borom tabaraka wa taala man zanna gayrullahi yughni aw yadur fa saaka fi daarayni suukaddin wadur sëñ Tuubaa day wax ne képp ko yaakaar ne njariñ ak mën naa jógee ci kurut yàlla ab dof nga an naf wa dur min arrahman ni lay sa min al bidaani wa sudaani njëriñ lor moom mi ngi jógee rek ci yàlla waaye jógeewu ci ku ñuul ak ku weex an naf wa dur min al wahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi njëriñ ak lor mi ngi jógee ci yàlla waaye jógeewu ci ay noon ak i soppe an naf wa dur min al jabbaari laysa min al abraari wal fujaari njëriñ ak lor mi ngi jógee ci yàlla waaye jógeewu ci ñu baax ñi ñu bon kon yàlla na suñu borom tabaaraka wa taala te musal ñu lor ñaan ko nga xam ne joxe woon nañ ko nag ñu tàmbalee ko muy eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon Seydina Ousmane ma min abdin yaqulu fi sabaa'i kulli yawmin wa masaa'i kulli layla eh, bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi l ardi fi sama wa huwa samiul alim salaasa marat fa yadurruhu fa yadurruhu shay amul benn jaam buy wax suba ak ngoon ñaan yi ñetti yoon mu wax ko ñetti yoon suba wax ko ñetti ngoon benn lor di ko jógee euh, wala mbas di ko dal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxoon Usmaan ibnul ñaan nga mooy bismillahi llasi laa yadurru maa asmihi shay'un fil wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-samii'ul aliim bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-samii'ul aliim ñett yoon lañ koy wax ah euh, jëlee ci sëriñ Afiya Ñang it sëriñ Afiya Ñang ku na xam ne euh, nit ku am solo la di bokk ci borom xam-xam yu mag yi ci yoonu murit yàlla na fa yàgg lool te wér sëriñ Afiya Ñang nee na bayit wi eh, Serigne Touba moo ko waxoon ñu taxalee ko ci sëriñ Mor Moustapha sëriñ Mor Moustapha joxoon ko ay taalibe yoo xam ne nii dañoo nekkoon ci mbas ci lu nii bañ ñëwee wax ko ko mu wax leen bayit wi nee na bañ demee ba wax ko ñam daloon ñëpp dañoo wér te ñam dalagutoon dalul leen kon ñun tamit ne ko suñu affaire ñang baaxe mbokk yëpp ñun ñoo ko yaatalaat baaxee ko mbokk yëpp bayit wa mooy war najjinaa min charri hada al aami wa charri ma fihi wa barik aami wa najjina min charri hada al aami wa charri ma fihi wa barik aami wa najjina min charri hada al aami wa charri ma fihi wa barik aami ñoo ngi euh, ñaan suñu doon tabaaraka taala mu musal ñu defal ñu tawfiq te li mu tegg ko ci àdduna be ba ñëpp delluwaat ci seen sago te yàlla na ko wutale lislaam euh, ak doole Hmm. Eh, doole lislaam ak doole jullit ñi suñ borom yàlla na teggi li ci kaw ci àdduna waaye yàlla na ko wóotalee lislaam mm, mu daj feppu ci kaw suuf ba ñëpp di jaamu yàlla ñoo ngi sant mbokki jullit yëpp mbokki taal bi rot na waa daara Hikmatul Yawmi ci waxtaan wi ñu doon def démb te mbokk yëpp wuy wuy ci muy liggéey bi nga xam ne dañ koo bëgg gën a fonkaat gën cee soññe gën koo yóbbu ca kanam ndax fii mu toll ko dama koy faral di wax ne yéen ko fi tolloole waaye nag la Cheikh Mamadou Fadal waxoon Serigne Touba ba jumaa ja noppee bam sukkee ci kanamam ne ko Mbàkke de fii lañ toll ci liggéey bi waaye nag weesale nañ la ko ñu nit fii ñu toll weesale nañ ko sëriñ bi kon dañuy ñaan daara yi jolli doon ay daara yi daara di sant bu baax nag waa daara Hikmatul Yawmi ak association bi ñi ci def seen dara waaye démb itam ñi ci wuyu bari nañ lool fa tabarakallah ak ñi ci jox seen numéro xam naa ñu ngi ngeen déglu secrétariat bi ak mbokk yi liggéey ci loolu danañ jokkoo ñëpp